léegi noonu di dugg si ci Dakar Sacré Cœur yaakaar naa Dakar Sacré Cœur nag yaakaar naa gis ngeen koor gi macha allah. tey nag mu war a jàmmal mais est-ce que bi loo may jox loo may jox avant que. maa ngi xool tay damay kii quoi dama damay dama leen defaral ay bagages mais ñoom mais daf leen nang rek. mais seen DG eh. na na wàññi bii. nee nag seen xaalis seddul de. <laughs> bol par force. Fubal farfort dégg nga ne Wally Ballago Seck wax nee na seen xaay seen xaay seddul Fubal gis nga macha allah kon bi ñu jógee ci koor gi match yi ala daw mi ñu doon def fii ak Faramaren macha allah Wally Ballago Seck doon ko organiser tey nag muy Fubal ak li nga xam ne mooy wéef muy ambassadeur wave yaakaar na muy le centre du peuple le soir du peuple lépp loo xam ne lu fi baax la rek mooy ambassadeur am tey nag muy fubal ak euh, waa wave gis nga macha allah muy fubal ak waa tey nekk ambassadeur Wave tey di fu war a. parce que mënu nee na 8-0. waaw man DG bi loolu laa dégg. loolu la wax nee na 8-0 lay dóor waale. ma ne ko yow wóolu nga sa équipe de. waaw na wàññi bii. <laughs> na wàññi bii ne daan bii mos dëkk bi amatul. <laughs> mu ngi noonu mais yow tey yow lan nga fas yéene defoon ñoom. ah. score bi lan la. score bi. Hmm. comme ñoo may joxe koppar bi am ah, na naxante ak ñoom rek. ay deux ay trois ay un yooyu. ah waaw nooy def. ah ñu ngi ko ba tey gis nga macha allah tey muy mat bu la daw mais diggante Wave ak kan seen ambassadeur kan la le centre du peuple le soir du peuple kan la Wally Ballago Seck tey nag fii ci Dakar Sacré-Cœur ginnaaw bi ñu amee match ñu fan yëpp ci koor gi tey nag dañuy mat am match boo xam ne bu la daw mais la muy mat Wave ak Wally Ballago Seck le centre du peuple le soir du peuple ki nga xam ne macha allah lépp loo xam ne baax na ci Sénégal rek yaakaar naa ci adduna bi mooy ambassadeur muy Wally Ballago Seck tey nag muy nekk ci match bu alaada mu noonu Cheikh Senghor a ngi noonu. bi dugguñu ci terrain bi gisoo premier suul bi génn na fi mu toll nii tàng nañ premier suul bi génn na waaw waaw non ñu dañ leen am na lu na seen xaalis yombul moo tax football bi du yomb tey. ah waaw match bi du yomb moom bu ko waxee xam dara donc kon match bi du yomb bàyyi ñu dugg ci biir terrain bi rek ñu xool. te bépp dafa mel ni àndaale nañ seen score de moom. ah waaw dégg naa dinaa leen seen score mais nañ football rek. loolu garaaw la de. waaw mais le terrain le terrain nous dira le dernier allah. <laughs> ndeysaan macha allah li nga xam ne mooy Cheikh Senghor moom la wax. Pogoo ngi noonu ndeysaan macha allah ndeysaan le centre du peuple le soir du peuple mu ngi noonu le golden boy de la musique sénégalaise maanaam kan la Wally Ballago Seck mu ngi noonu takk ay goraasam di préparer mais tey li ma gis Wally dafa jël match bi au sérieux par rapport ak match ya doon am dafa mel ni comme li wax sànq rek loolu moo am seen xaalis yombul tey moo gis mu takk bu baax a baax parce que Wally daawul dugg nii terrain bi tey toog takk ay dàllam ba mu dëgër ah daawul dugg nii tey dafa duggee ah Arma Ndiaye. Arma Ndiaye xaalis bi yomb na wax. nee daa baax xool bee rafet xool bee rafet xam moom du wax lu ñaaw mais ñu wan man ma ne dañ la liggéey ñoom loolu nga yaakaar waaw loolu moom dégg nga xam ne Armand Ndiaye moom la wax yaakaar naa ba léegi rek mu noonu le centre du peuple le soir du peuple Wally Balago Seck comme ni koy wax toujours rek ki xam ne tey moo téye musique sénégalaise bi macha allah mu ngi noonu ndeysaan sol li nga xam ne mooy wave préparé mu noonu ndeysaan le centre du peuple le soir du peuple mu ngi noonu ngi noonu ànd ak doomu ndeyam Pago mu ngi noonu bi le centre du peuple le soir bi cum mu ngi noonu numéro 10 Faramareen Wally Ballago Seck mu ngi noonu tey nga daw bu waane bi macha allah xoolal muy takk daw bu waane bi 10 la maye 10 gann 10 la maye 10 gann tey nee ne xoole baax na. mais mais tey xoolal bal bi. tey mu ngi noonu di daw Waly Balago Seck bal baa ngi nii wéef ci def yaakaar naa muy loo xam ne tey nag lu ala daw me tey fii ci dakaar Sacré-Cœur kan la le centre du peuple le soir du peuple Waly Balago Seck le golden boy de la musique nag muy football ak li nga xam ne mooy tey macha allah mu ngi échauffé wu defal jël échauffement bi jëlal jëlal ma échauffement bi mu ngi noonu moom Moustapha takk 10 10 gann macha allah yal ko yàlla defal jàmm mu ngi noonu le centre du peuple le soir du peuple le golden boy de la musique sénégalaise mu noonu Wally Ballago Seck tey nag naa lépp lu fi baax rek ci bi moom mooy ambassadeur bi tey nag muy football ak Wave di ambassadeur Wave waaye am na lu mu wax sànq nee na Wave xaalis bi <laughs> neexul lekk moo tax tey match bi du neex du yomb mu ngi noonu le centre du peuple le soir du peuple Wally Ballago Seck le centre ji neexul mu ngi noonu ndeysaan sama caméraman jëlal ma waaw mu ngi noonu ma léegi rek tey match bi dañ ko jël sérieux kooku mooy Djine Khoule mu ngi noonu macha allah bokk Faramareen le centre du peuple mu ngi noonu di occupé ak euh, ki nga xam ne mooy Djine euh, Khoule. loolu de mooy commencement xanaa lool day day léemu Djine ngi noonu di ko xoolal euh, li nga xam ne mooy godage bi mais nde ndeysaan ba léegi rek ñu ngi fii dakaar Sacré-Cœur ak ñan Wave. waali Wave Wave waali waali Wave Wave waali waali yaakaar naa loolu adduna bi xam nañ ko tey nag ah ñu mu lu garaaw matt boo xam ne jël nañ ko au sérieux ku xam waali waali wéef wéef waali tey nag yaakaar naa dañuy wéef ba wéef caméraman yi dañuy wéef ba wéef ñi nga xam ne mooy journaliste yi tey du yomb ak waali balago Seck la centre du peuple tey fii nga xam ne mooy ambassadeur wéef ci Sénégal tey nag muy football ak waa wéef muy matt